waaw mais aujourd'hui j'espère avoir la réponse ban loi de finances rectificative moo gindi xaalis bi Karim Meïssa Wade fay ci fan lañ ko dugal ça fait cinq ans ma di ko laaj laajoon naa ko commission gisuma ko ci rapport monsieur le président qui men vers PAM PAM c'est dans le département de Kébémer dans mon village de mes papas de mes aïeux je l'avais dit gisuma ko ci rapport bi Monsieur le Président, j'ai donné une occasion aujourd'hui à mon honorable président Mamadou Lamine Diallo Tekki de le rejoindre sur son plaidoirie et ça regarde uniquement un rapport. Si, si ce débat a été posé par rapport, par rapport à ce qu'on appelle le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Président, après le plaidoyer de Mamadou Lamine Diallo Tekki, après le plaidoyer du président de la commission des finances et celui du rapporteur général, après celui du ministre qui, par excellence, avait dit qu'il ne parlerait pas, il devait avoir un vote. Je pense, si les honorables députés ici présents me le rappelleraient, personne ne me dira le contraire. Le vote ne s'est pas passé. Ça, Monsieur le Président, dama la koy rappeler rek xam naa yow yaa ma ko gën a xam on était collègues on était là-bas assis à côté Monsieur Président sur ce même règlement intérieur, l'édition 2015 nous a été remis durant toute la législature, durant toutes ces cinq ans. Aujourd'hui, à la 14e législature, le ce matin de la rentrée parlementaire, on nous a remis ici sur les tables des classeurs contenant édition juin 2021, non falsifiés, mais généralement falsifiés, ragazzi. généralement changé. Et ce règlement intérieur ne pouvait pas faire l'ordre d'un appel ici parce que ça n'a pas été donné en 2020, ni 2017, ni 2018. Ça a été donné récemment. Récemment, et vous le savez très bien. Donc je pense que su ñu ko posé tey tey lañ ko war a posé parce que loolu am na te bu ngeen demee ci article 14 15 16 di ngeen xam ne règlement intérieur bi cuqati nañ ko coppati ko laal loolu nag moom yéen rek la du man monsieur président ma ñëw ci beneen considération dans ce rapport j'ai dit am na koo xam ne dibi na suñuy kéwél kenn waxu ko dara dibi na suñuy kéwél dem na toogi mu jënd lu toll ni quarante et quelques milliards d'armes lu falsifié ko jënd ko loolu yéen monsieur président lu tax dugalu leen ko ci rapport bi ba ngeen ma ci tontoo ba pare kay yow yaa ma ci tontu monsieur ministre vous-même vous m'avez répondu léegi dugal leen ko si rapport bi rek Sénégal yi xam naka la 46 milliards yooyu ñu jëndee ay armes te du duñu gendarmerie duñu police ñu militaire mu jaar ci ñoom ñu jënd ko loolu buggoon naa koo xam